xutba jumaa samarqandiya dégg la eh, da bu xam ne am daal léeg mm-hmm. <coughs> axbara xam le na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam qaal mu ne istabdaatu yaxantu woon naa mooy jàpp woon naa marchandise fii baadi asfaar yi ci lenn samay tukki alqamda suukar dama mas a def suukar muy sama marchandise ma jël ko wayaasi yi wa qasattu ma jublu samarqand samarqand ma jëm ak moom ci dëkk bu ñuy wax samarqand wa te nekkoon naa yow ma isin te bisu keroog xamuy mm. ma sataat daa jub ji taxawaay mm. jëmuma nasaati dégg ko bari ca waxtaande mm. mu ne ah booba jekkadiwuma dërëdiwuma te tayaluma wa kuntu nekkoon naa yow ma isin te bisu keroog jamono boobale xamuy ma sataati daa jub ji taxawaay mooy booba dëgërëdiwuma dëgër la jëmuma nasaati dégg bari ca armi danaa sànni han mm-hmm. xawsil miraahi ci xalaat fii ga réewu mm-hmm. ilaa xaradin jublu ba ay mbégte la so mm-hmm. ah boo bëggee lu neex man nga koy xam ah may def yëf yi ba neexoon waa saxeenu may dimbale bi may sababi ci ndoxam ndaw ala malaamixi sarabi ci gendeekuwaayu njuunux yi xam nga ak ndaw réer la àndal taxoon na ni ma dem kàttan sax ci lu mu amal njëriñ xam nga ñëw na boo dee boo dee ba ba foog koy séenit doo fekk dara xam nga ndaw moom i ñàkk xam-xam la àndal na léegi sax ma am kàttan ci lu mu amal njëriñ waa tawee nu may dimbale ko bi may sabab yi ci ndoxam ndaw alaama daa mi ci ci gende ko ay njuno yi fa waa fay tuhaa ma dikkal Samarqand bukratan robatin suba teel ak hajjuma maadaan kaabattu ci gannaaw ma jànkuwante a soobata jëfen-jëfe mu ne yàlla def suba teel ak hajjuma laa fa dem xam nga mooy juma kéw ko tuddee mooy sayyiduna Qusay maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam leen dee Makka ba mu def fa Daaru Nadwa daan dajeeg ñoom ci bis yooyu daan waxtaan mm-hmm. ci la tuddee woon bis bi ajjuma nee nañ yeneen bi tur yi nga gis muy sabt mm-hmm. al ahad al usnayni sulasa mm-hmm. armia al xamis yooyu ci moom la fayee ko am nañu leen wax loolu waaye arab lim daan wax mooy awwal awwal mooy ahad ahwan mooy al usnayni jubaar mooy sulaasa dubaar mm. mooy arbia munis mm. mooy alxamis mm. aruba mooy aljuma siyaar mooy asabt awalu ahwanu jubaarun wa dubaar fa munisun arubatun summa siyaar te bindu day am na naka nag ci dugg ñàkk a indi sax da ko indi woon noonu waaye indi na awal mooy al ahad noonu la teggale mu ne booba sonn waaye façon yi tuma dox rek ba ma woneetu te doxaati wuma ilaa an xasala ba am albaytu ne bi ma xasee sonn waaye dama gis ne bala noppalay di am daal am foo nopp loo moom la continuer góorgóorlu ma moom ba ma am ne falamma ba ma toxalee ilay jëm ci néeg ba di sama suukar sama marchandise wa malatu tema moom xawla hindi wax hindi xoltu jeng naa ilal hammam jëm ci hammam bi al afari ci gaaw waaw mattuma dañal an ni ci man moo safari coono dox mu ne bi ma amee néeg ba teg fa samay bagaas xam ne fii mooy dal bi boobu laa dem ci hammam ba sangu ci ne mën naa dalal coono daal dégg mm. nga mm. waaxastu ma jàpp mm. bil asari ci hadis wéexul li jumaati ci càngaayal jumaa ma ne itam daa jëfandikoo sunna dana def sangu càngaayal jumaa su topp ma gaaw fi hayatil xaasin ci melo aji toroxlu ila masjidiha jëm ci jàkkam aljamee jay jumaa ba ma sangoo ma ne naa dem te jumaa ji mm. li alxaqa ngir naa yéeg mm. bi man ci ki nga ne wala ci ñi nga xam ne mm. yaqarubu danañu jegeñ mel imaam yi ci yéen imaam la tax ma gaaw dem mooy nga la sàkku soo njëkk ah, bëgg naa koy xam wa yuqarribu te muy jegeñale mooy muy rey afdalal anaam gën ci juri kër da wax mu ne asaatul jumaati hmm. asaatul ula ñu hmm. rombe yooyu waxtu yu bëccëg dugg bi muy duggee hmm. ku fi dem juma dafa mel ni kooray badana mooy gëlëm gu foor foor la xam ki dem ci asan saniya dafa mel ni kooray nag ki dem ci arra asan salisa dafa mel ni kooray gàtt ki dem ci asan rabia mel ni kooray ganaar kale mel ni koo joxe nen ki xaar ba imaam ñëw nag mu doora ñëw bala ñëw dana fekk ñu doon bind këyit lem ko duñ ko bindala ci benn tiyaabu ci gaaw dem ah ndax bu imaam rek ñu doon bind tiyaabu yi mais lem këyit bi gis ne julli jot subaa ba imaam ñëw nag mu doog a ñëw kooku bala ñëw day fekk ñu lem këyit mu ne ma bëgg naa am ci tiyaabu yu fahaditu ma xeejoo bi an jallaytu ci sama jiitu fil halbati ci lefam korsima wa taxayatu te ma tànn al markasa saxuwaay li timaayal xutbati ngir déglu xutba yàlla dogal man jumaa ji daanaka maa fa njëkk ba ma demee seet naa boo xam ne jekku na mimbar bi su ma toogee danaa mën a déglu xutba bi bu baax walam yasal dañu annaasu nit ñi yadduxuloona da tàbbi fii diinillahi ci diina yàlla ji afwaajan mbir muñ dey mbooloo wa yëri doona te ñuy dikk furaada mbir muñ dey kenn waa afwaajan ak mbir muñ dey way tool nit ñi dañëw ci diina ci jumaa pari groupe pari groupe léeg-léeg kenn dugg léeg-léeg ay nit dugg noonu lañ def hatta yi rek tarda ba fees aljaami jumaa ji bi xam lii ci mbooloo bu jumaa ji wasal waasal te jot mm-hmm. tasaawi sax si hemoo jëmm mm-hmm. wasillihi ak keram mm-hmm. nga xam ne sawal jot na sunu lu ñu def jumaa jot na bu jumaa ja feetee ba sawal jot barasa génn la alxatibu aji xutba ji fi ubat yi ci bajaayam la imaam bi génn nag ak yërey jumaa yi mu taa diyen daa ji bëngéer xalfa ubat yi ci gannaaw mbooloom mi ñëw ne xam nañu ko dara xam naa dégg nga mm-hmm. fastaqaa mu dal di xéeg mm-hmm. fii mimbari daawati mm-hmm. ci mimbaru xoote bi mimbar mooy fi ngay taxaw de xutba mimbar mooy fu ñuy yëkkatee baat nabra mooy yëkkate bu baat mooy yëkkati baat selo bu baax a baax dén bu baax de mu ne inni la asmaa nabratan min qawliha akaadu an yuqsa alayya surura su ma dégg baatam yëkkat rek damay bégg bég bay wax jëqam masala ba mu taxaw bisir wati ca njubb la bi ne dafa yëg ci minbar ba taxaw ca kaw fa sallama mu daal di nuyu musiran daa ji junji bilee mi ni ci leejoor mu ne asalaamaaleykum yëkkati mbooloo mi loxo su ma jalasa topp mu jékki xataa mm. xutima ba mu watt lees mm. nas mu taasini noose nodd gi mm. mu toog noddkat yi nodd su ma xaama topp mu jóg wa qaal mu ne alhamdulillahi man goyil asma ba mu àgg rek fu ulal ahwaal ndax du loolu jàllale beeku mbir yi wa sawiroo na ngeen di mellalal li awhaamikum mm-hmm. li awhaamikum ñaa mm-hmm. seeni deflewu seeni xel xuulal mm-hmm. ahwaal jàllar be pour mbir yi wa xululal ahwaal ak wàcceeg tiit yi nit ar bu nekk xelam da war di dem ci war a digg àddina wa musawaratal alaal ak jànkoxante xopp yi wa musaaramatal maal ak dogu halal wal al azim mm. wadda kiroo na ngeen di fàttaleku alhimaama dee mm. wa sagrata matrain yi mm. ak tiisu narmeelu waayam mooy mandi teeg narmeelu waayam wa ramsa ngeen di fàttaleku bàmmeel wa hawla muttalahe yi ak tiit ak yéeg yéegam wala kuñ kuñ koy kuñ koy dem mm-hmm. wallax da ngeen de fàttaleku itam mm-hmm. laat mm-hmm. mooy biir bàmmeel wa wax data moo daxee yi ak wéedaayu kañ ko dénk mooy kaca nekk ni muy wéetee jëfam rek moo cay du wéetal wal malaka ak malaaka mi kii dikkal nit ci bàmmeelam ngeen de ko fàttaleku wara waxte suaalihi mm. ak tiitaange laajam mm. wa madlan yi mm. wal ma hoo na ngeen di gendeeku addahra jamono wala karrihi ak bon ak xakkam wa suaa mihaalihi ak ñaaw pexem wala mbugalam bu mag yi ak pexem kam tamal sa na bu mu paree moom jamono mm-hmm. maa la man mandargaale kay xam mm-hmm. na fi yu rëyoon mm-hmm. jógee nañ ci te jamono tax waa marra bëri na bu mu wexalee mataaman ñam bëri na lu neexoon mu gën a xadi te soppeekul jamono wa tax taxa bëri bu mu dàqee bu mu tasaaree haram raman xare bu xam-xam doole wa dammara bari na bu mu halagee moom dee moom jamono malikan buur mukarraman bari bu mu teral hammuhu yittem daal moom jamono sakkul masaamee mooy taxal nopp yi rek wa saxul madaamee ak sotti rongañ yi rek wa irdaawul mataamee ak sooyal xemem teef yi wa irdaawul musma waye daaw musmee ak xalaaj aji déggale wasaana ak aji dégg ba xam daal yépp mooy jële ci nit ñi rek amma matale na umoo xatte moom jamono almuluka buur yi waraaha ak way suufe yi wal masooda ak ku sangu mooy kuy toppe mm-hmm. wal mutaha ak ku ñuy mm-hmm. wal maxsuuda ak ku ñuy mm-hmm. wal fusaada ak ña koy xañaane Mm-hmm. wal asaabi da ak jaan mooy ñu bon ñi mm-hmm. wal asaada ak jaam ak mm-hmm. mooy jàmbaar yi maama may hut halal moom jamono illaa maa la ndare mu waa kasa te mu alamaala mébét yi na la halal teg la ci halal ja ba doo ko wa maa wasala mosul jokku kenn illaa wasala ndare wur som mën naa dem ba mel ni jox na la njëg ci dara mujj jàmbu la ca wa kalama te jam mm-hmm. alaw mm-hmm. sarra mosul bégloo mm-hmm. illa wa saa ndare na moom wala uma te mu bon waa saa te mu ñaaw wala asaha mosul wérloo moom jamono ila walla da ndare bu jurloo na a jàngoro te lu mu baax a baax waram waxaate mu tiital mm. alawi daar soppe yi mm. moom dëhru ak duniya mm. ni rek la ñoo demee de dëhrun wa duniya tulaaqi tulaaqa kulla man walada ladayhima bi mahallil xasfi wal booli mu ne jamono haddina képp kuñ jur itam yàgg ñu daane la in rabba qatala buñ la yaree dañ la rey aw sammanaa akala mm-hmm. kuñ jëfal dañ ko lekk mm-hmm. fama demoon tamia fihi bi maxkooli mm-hmm. moo tax deret bi ñu am soxla il faut dañ ko tuur in rabba ya qatala waaw mu ne kuñ yar itam dañ ko rey aw sammanaa akala kuñ jëfal it dañ ko lekk fama demoon tamia fihi bi maxkooli ñu wax na ko de in rabba ya qatala aw sammanaa akala xamante muntami fii nii bi xuuni mu day na waar sax ak bu jot dikk nag nodd na gaajin na ci mimbar bi nodd na ba àggal mu tàmbali xutba bi da nga gis xutba bu xam ne amul benn tomb nag te mm. ay waade ñor moo ci nekk mm. su ma xaama topp mu jóg waqaal mu ne mm. alhamdulillahi almamduhi al asma almahmudi al ala alwasini al ata ba mu àgg mm. alhamdu mbooleem cant mm. lillah aji saxla ñaar borom mm. almamduhi al asma ku ñu taggee ci ay turam yàlla mi nga xam ne ko tuddee yëpp tur yu neex la tur yi tagg la rum ci mën a doon rek melaw mat lay tegtale ci moom kon ku ñu taggee ci turam la almamduhi al asma ku ñu taggee ci turam almahmudi ala kada ku ñu sant xéewalam mm. ki nga xam ne heure bu mu ngay joxe ay xéewal mm. yu xam ne xéew na ko ci sant mm. alwasin ata ko daa jiyaatu ci may ki nga xam ne mayam joti na mboole mawjudaat yi amul kenn ku xam lu dul ne xéewal ak yàlla xam na ci cër ndax xamal giñ ko xamal xéewal la naka noonu yore giñ ko yore mu nekk di bi mu fi nekk xéewal la almatom bi këre ku ñu xoo mm-hmm. li azmi waa ngir dagg tiis mm-hmm. moom mi nga xam ne bu tollu ndiggante amee mm-hmm. moom rek moo mën a teggi ndiggante soosale ci moom rek la ñuy jublu malikil imam kadaaji moom xeedi moo moom xeedi ñu njëkk ña ak ñu mujj ña ñëpp wa musawwiri rimam kadaaji melal yax yu de way funux ñi dee itam ëllëg moo leen di dekkalaat wali sama mooy kexe tabe wal karami ak tabe mooy borom mbaax gi mooy borom tab gi wa muliki aadin te daaji halak haat wa irama ak iram iram ni ñu am doole ñooñale ak haat mooy ki leen raafal adraka jot na kulla sirrin mépp mbóot elmu woo xam-xamam xamul lenn lenn loo xam ne xamu ko la yaasubu an ilmihi misqaalu darratin fil ardi wala fi sama ba mu wa wasiha xëpp na kulla musirrin aji nuur ci bàkkaar ilmuhu lewetam mbaa xam mu xëpp doole bàkkaati jaamam ñi ndax bàkkaat jëfi jaam la mbaax gi meloom la meloo yàlla nag man dayam ak jëfi jaam te lu mu wa wasi'a hëpp na kulla musirrin bépp aji mu nuur ilmuhu lewetam wa amma matala na tawluhu mayam kulla alamin bépp alam amul kenn koo xam ne amul fenn bu xam ne mayam xaggu fa wa hadda màbb na xawluhu kattanam kulla maaridin bépp aji féeteerlu amul kenn kuy féeteerlu ku xam ne raafal ko dara ci kattanal yàlla ahmaduhu maa ngi koy sant hamda muwahhidin sant ak aji fas wéedam mm-hmm. maa ngi koy sant cant ak ku fas ne moom yàlla kenn la mm-hmm. muslimin ku daaji xomatul ko mm-hmm. koo xam ne ab julit la lépp lu islam soxla mu nga ca waa don maa ngi koy ñaan doha am mu am milin ñaan ak aji yaakaar ko musallimin ku daa jébbal ko mbir yi maa ngi koy ñaan itam ñaan ak ku ko yaakaar ñaan ak ko nangu ne du dara ci mbir yi yëpp moo ko xamee waa dama maa ngi koy ñaan mm-hmm. do mu am mu am milin mm-hmm. ñaan ak aji yaakaar mm-hmm. musallimin kuraaji jébbal ko mbiri moom allah moom rek mooy allah hmm. laa ilaha déet benn buur boo xewee jaamu hmm. illa huwa ndare moom hmm. alwahidu moom mooy kenn koo gis rek la ngay gis moom ñii ko ko tuddee mayeeg yàlla gu ko yàlla farale la waaye jëlee ko ci kudul yàlla kon moom waahid la waaye do kenn mu ngay feeñee ci lim xamal al ahad kay kenn moom kenn rek mooy yàlla keneen du yàlla al adil mooy aji maandu mooy koo xam num tëralee mbir rek hmm. noonu la war a demee hmm. asamat mooy ki ñu soxlaal hmm. mooy ki nga xam bu haajo a amuñ benn jubluwaay bu dul ci moom laa wala de doom lëxoo de ko ñaal hmm. amul doom ndax lan xeetoowu rek leen hmm. àllam yelit lintifaay mujaanabati yi hmm. nda yow xam nga ne walid ak mawlud dañoo xeetoo kon amul doom ndax xeetoowu rek leen wala walid du caageen aji jur amul itam ku koy war a jur ndax sosuwul parce que kuñ jur ku sos moom la ñuy jur dégg wala nit a dit aji dimbale hmm. maa moo di ànd moom hmm. wala mu sànge du càggeen aji dimbale hmm. amul soxla ci ku koy mbaa ku koy jàppale ci dara déedéet doylu na walit ku nekk arsala yónni na mu hmm. muhammadan muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. mumahidan du noon mu daaji lal hmm. il islaami ñaal dinay lislaam moo yónni sayiduna muhammad muy ki nga xam ne moo fi lal lislaam ci moom lañ xamee dinay lislaam mu wassidan te daaji saxal milla mooy yoon wi nga xam ne ki jaaree dana mën a def iqamatul maas dana mën a def itam al istiadaad lil maad toppatoo sa nekk fii ci àddina ak itam pareel sa àllaaxira yoon wi ngay jaar mu sotti moom la ñoo tuddee milla kenn nag nit mënu koo tëral yàlla képp moo ko tëral ndax ay ay awamir lahaa ndat te loolu ko baax a baax ay awamir lahaa ndat amru nag moo xalqu Mm-hmm. toujours ñooy déggoo mm-hmm. amru ak xalqu toujours ñooy déggoo mm-hmm. léegi nag taqdirul amri alal xalqi nag ko ki rek moo ko man keneen mënu ko loolu moo tax il faut rek ñu soxla ab yonent muy nit koo xam ne sama borom moo koy defaral boppam ba mu mérito wax ak bindéef yi su ko defee nag mu doxale ko diggante moom bindéef yi da ko xamal bindéef ni war a ànd ak yàlla muy jotalle ko yàlla xamal ci bindéef yi ko kook diina mën a taxawee taxawee mm-hmm. moo tax mu ne moo andi sayyiduna muhammad mm-hmm. pour mu taxawal ñu diine l'islam mm-hmm. dëgëral ñu milla bi nga xam ne ci la iqamatul maasi mën a amee ci la al istiadad lil maas mën a amee itam mu watidan te daa ji saxal li millati diina. Hmm. mu akkidan te daa ji feddali. li addi hmm. li adillati rusli. Hmm. tegtali yonent yi. mu akkidan te daa ji feddali. li adillati rusli. tegtali yonent yi alayhimu salaatu wa salaam. dafa ñëw itam dëggal ñi ko jiitu woon. dafa ñëw itam dëggal ñi ko jiitu woon. wa musaddidan te daa ji jubbanti mm-hmm. lil aswadi ñaal aji ñuul mm-hmm. wala ahmari ak aji xonq mm-hmm. mu doon ko xam ne salaw gënante man da xamee ci dara lu mooy ci topp ko rek ku baax ku xonq man da gën ku ñuul ku gëne ku ñuul itam man da gën ku xonq gënante daal ci diggante nit ñi toppul benn couleur mu ngi topp taqwallahi taqwallahi man da xamee ci lu dul topp li yonent bi sallallahu alayhi wa di woote ma dama musaddidan te daa ji jubbanti ilaas mm-hmm. wari ñaal aji ñuul mm-hmm. wala xam daa nga ji xonq mm-hmm. wasala jokk na mu alaxaama bokk rafetal na bokk gi bu baax kenn ku nekk lay xam jox na ko ko waan la ma xam na mu alakaama xatte yi mm-hmm. leeral na xatte yi mbiri yëpp mm-hmm. li nit saña ba mm-hmm. li nit sañu da ba ak li nit sañu da def ak li nit xam ndigal man koo def man koy ba li ko dalee fi ñu ko yónnee ba keroog yawmal qiyaama yëpp leeral na ko loo ca xam xam nga ko lu la hump hump na la waaye xamul dara lum leeralul nag li ko dalee fi ñu ko yónnee mhm. ba keroog yowmal qiyaama mhm. leeral na lépp luy xàtte yàlla mhm. ci jam ñi nit lim sañu da ba nit lim sañu da def nit lim am ndigalal man koo def man koy ba xamoo mm-hmm. ca dara. Mm-hmm. la nga ca xam. Mm-hmm. nga ko. la nga ca humpu. la la humpu. moo la ca humpu. waaye bàyyiwul dara nag. da lay xamal ne bàyyiwul dara. mooy falladina amanu bihi. wa ansaruhu wa nasaruhu. wattabahu nuura alladi unsila maahu. ulaayika humul muflihun. dañ ne bu ngeen ko toppee da ngeen texe. te lu baax ma lay xamal ne kon lépp lu yàqal ni texe rek. wane na ko lépp luy waral ni texe yi tam. wane na ko rek. kon nag mooy toppatoo àtte yi. dégg nga mm-hmm. wa wasama mandargaal na mu mm-hmm. alxalaala lu lew mm-hmm. lu lew lu ne leeral na ko lu nit sañe jëfande ko wal ak lu xaraam leeral na itam lu xaraam warasama xàll na mooy melal na al ixlaal xeewee ko ci xarmal wal ixraaba ak xarmal lu mën a doon ci xeeti jaamu yi nañ caa sóoboo ak nañ koy doxalee ak na mooy sottee yépp leeral na ko karrama yal na yokk tiraanga mm. allahu yàlla mm. mahallahu barabam mm. yal na yàlla da ko yokkal waxtu bu wa kammala te yal nay matalal asalata salaatu wa salaam ak salaam dafa ñaal ko te yal na di yokk salaatu ak salaam ci wa rahima te yal na yërëm aalahu ñooñam alkurama ñu da way tedd wa ahlahu ak ñooñam arruhama ñu da way bëri yërmande maa hadara maa hamara fekk sotti na mm-hmm. rukkaamu niir wu lënkaloo mm-hmm. wahadara mm-hmm. ak fekk ak fekk baatal na mooy coow na xamaamun pita wasaraha ak fekk wër na sawaamun mbalde wasata ak fekk songe na osaamul jaasi mooy salaatu bi yàlla bum dañ di am rek yamaloo jëf leen yéen nit ñi rahimakumullah amala sulaha jëf yi ñu xiw ñi mm-hmm. da def jëf yi ñu xiw ñi mm-hmm. wag dafoo na di sonn mm-hmm. li maadikum ngir seen delluwaay kadal asiha sonn ak way wéri na ngeen am kattan ci seen njëriñal àllaaxira comme nit ku dara jotul ni muy amee kantan ci bijj la koy jëriñ ak daw lu koy lo war dafoo na ngeen di jajj hawaakum seeni bànneexi bakkan mm. radan ada kem jajj ak noon yi mm. seen bànneexi bakkan da ko jajji mm. ni ngay jajjee noon bañ koo may lu ne ndax bànneex boo ko mayee topp ko fi mu lay jëmale mooy ci halaku wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah ci dalal la lay jëmale te inna alladina yudilluuna an sabilillah lahum adabun sadid kon ci rek lay jëmale nit waaye doon na ngeen xadul mm-hmm. li rexlati laxas mm-hmm. i'daada suada kem xadul ak way texe yi ñu mm-hmm. sama borom def ñuy def ñuy ñu texe ñu xam ne àddina bi jaarukaay rekk la bañ di ci bàyyi xel àllaaxira na ngeen teg ñooñu bët ngeen def leen royteef la ñooy def ngeen de ko def lañ fas ngeen fas ko nañ mel ngeen mal ko lañ bañ ngeen bañ ko waaye doo na ngeen xadu. Hmm. li rex la te ngir laxas. ñax hmm. daal de daa kem xadu way texe hmm. wa dari xoon na di mbubboo mooy na ngeen di koŋoo. xulalal waraaye. koddaya ñoom waraan la. waraan mooy taalluqul qalbi billah. xoolu bu baax ne. yàlla mooy kii séddale. te pare lu dul sa cër dara manda tax nga jot ci mm-hmm. lii sa cër dara manda nga jot ci mm-hmm. kon lu leerul jarul dugg amul njëriñ mm-hmm. ah ndax moytu ko du la jot sa cër seetlu ko baax a baax dugg ci du tax a jot lu dul sa cër moo safaanoog su fekkee nit jikko woon ko rek yu bëree bëri ci toroxaande yi gaar nit ndeg bëggee gu man na jaa mucc Mm-hmm. mu ne kon de leen ko suturaale seen bopp mm-hmm. ndax ci koddayal ragal yàlla ci la bokk man mm-hmm. na musal nit ci defin wu defin wu xam ne a jagul ñii ko ci timo waaw wa dari na ngeen bubboo xulalal waraye koddayee ñoom sàmm la wa daawoo na ngeen garbal xelala samahe xopp yaa ñoom xemem la mooy taalluqul qalbi bi xeyrillah Mm-hmm. dafa am yëqiin ci ne mm-hmm. dara man da tee nga jot ci mm-hmm. lu dul sa dara man da tax nga jot ci ba léeg bëgg-bëgg dala dugal ci lu lay toroxal loolu da ngeen ko wattandiku mu ne feebar la na ngeen di ko xeex xaaj ko xeex ko sori ku baax a baax wasa woo na ngeen di jubanti awa dal amali dëng-dëngu jëf waasoo te na di moy wasawisal amal jaax jaaxle ya ñoom ay mébét la mhm. da ngeen di wattandeku tolul amal mhm. baax na ko mhm. beneen yoon insha allah ragal leen yàlla allah ragal leen yàlla raakum yal na sàmm leen allah yàlla yal na yàlla sàmmal leen boppam nit bu ragalee yàlla sama borom moo koy wattul boppam illaa ma ba kañ la nag mm-hmm. mu daawamatu la wétta foofo mm-hmm. de foofo rek xamaloo ko àpp de caaxaane sa lépp mm-hmm. ba kañ nag mu waasalatu saawi ak jokkoo jamaj heure bu ne rek num duur rek heure bu ne rek num duur kañ ngay dem ca nam do wa toolul ak yàgg nuur nuur ci bàkkaar nuur ci bàkkaar rek ah doy na waar di mbiru abu dula eh, ma trop Hmm. kay bu doy war la hmm. waxamlul isaar ak xenu diis diis hmm. da jël ay diis diis yi bàkkaat de tegoo rek diis diis yi xàqa de tegoo rek ba kalamil hukama ak sànni waxi hukama yi ñi nga xam ne ñooy wax lu defer nit la ñooy wax nga waroon koo dégg deferu ca loola sa yoon newu ci ba wa muaasatu ilahi sama hmm. ak mooy yàlla mi borom xasama de hmm. wuteeg yàlla ci santaaneem hmm. yi ak ci tereem lim lay sant ko sàggane li mu lay haaye ko de ba kañ nag amal haramu xanaa du màggat xasaadu ku mooy seen waxtu ko du mooy marhala bu mujj ci marahilul hayaati xam ne lay sama daa illal mawt te xàgg ngeen aa wal madaru xanaa du suuf. Mm-hmm. mihaadukum lal. Mm-hmm. boo ëllëgee ana fu di toog. Mm-hmm. xanaa du suuf si. ah kañ imaamu xanaa du mudrikukum aji jot la leen. du dee te man leen ko rëcc mukk. ay na ma tëkkoonoo. yudrikumul Mm-hmm. walaw kuntum mm-hmm. fii burujin mm-hmm. musayyada su ngeen tabaxoon tabax yu gudda gudda gudda gudd dëkk ca jaww ne da ngeen a làqu dee it dana leen fa fekk de wa siraatu xanaa du siraat maslakukum mooy seen sóobuwaay xanaa du siraat il faut jaar ci mën a romb safara du gaajar ah kañ bi ama saatu du bis maw'idukum seen dëxaluwaay hmm. xanaa tamit penc lañ leen digal hmm. moom lañ leen digal de hmm. wa saahatu wa amaru la wax de wa saahatu wa amaru mu ne bis penc moo dàq moo gën a bëri lu mën a tiital nit moo gën a wex itam mbugal saahira mooy fa ñoo dajale nit ñi ci bis penc mawri mm-hmm. di ko mooy seen rotuwaay mm-hmm. aha kañ di mm-hmm. amma amma ahwalu tammati daal xanaa du tiisi bi penc musadatun lu ñu fuglu la lakum ñaa leen fa ida jaati tammatul kubra di dis bi gën a tat bu dikkee mu yow ma yatadakkaru linsaanu ma saxa wa burizatil jahiimu liman yaraa. bis booba bu dikkee. fa ammaa man taxa ba mu amaa daarul masaati. xanaa du kërëg mooy yàlla yi. al hutamatu hutama la. al moosa da bëri bu ñu tëj. kallaa la yumbatanna. fil hutamati. mu ne ko sànni hutama. alquran bu ne wa maa yudrika. du la ko waxal de. la may wax waaye usri comme du la ko hmm. waxal waaye bu ne wa maa adraaka hmm. soo dégloo rek dana leer mu ne wa maa hmm. adraaka man hutama ma xam nga luy hutama mooy naarullahi lmuqadas safaraw yàlla wiñ taxal allati tattaliu ala al afida te buy làkk day dem ba ca xol innaha alayhim muusada mu ne safara soo dalee ci lañ leen a tëj fi amadi mumaddada fekk fañ leen a def dafay doon lu ñu xaaj ca kaw dugaleen ba tey jël di garde maalikun maalik la benn yërmande amu ko ci ñoom wurwaahum seen taar xaalikun aji lën aji lëndëm la aji ñuul la benn leer duñ ko wataamuhum seeni ñam mm-hmm. assumoomu ay tooke la mm-hmm. te lu wala taamun illa min xislinin mm-hmm. la yakuluhu illa alxaatiun ba mu àgg asajarin saqoo waxawa uhum seen ngelaw seen jaww asamoom ngelaw lu tàng rek la laa maa la déet xalal alxanduhum di leen texeel foofale de wala wala da du càggeen doom wala xaata de dee lim. Hmm. xamaahum de leen mën a xaar foofa la de. Hmm. wala xaata du càgg na ay xar. Hmm. ala ma ne. rahima yàlla na yërëm allahu yàlla. imrahan waajoo xam ne malaka moom na hawaahu bànneexu bakkanam. waa ma te mu jublu. masalika hudaahu sub way jubam. waa kama te mu xereñee mooy mu rafetal. taata mawlaahu topp boromam. wakkadaa tem nangoo sonn si raw yi ma waaw ngir mbégam sama waaye fële hmm. ki jar ñaanal yërmande yàlla te jar koo yaakaaral hmm. mooy ki nga xam gana ba kanam hmm. ci tegee ci siratul mustaqim rafetal topp yàlla nangoo sonn fii pour nof layu fële pour mbégam fële waxaamila mu def muy def li mu war a def maadaama sax na alhamdu dund mu tawi an daa ji topp doo ko ne fekk mu ngee dund hmm. ci la yàlla santaane hmm. ci lay nekk hmm. waabud rabbaka xatta yatiyakal yaqiin yaqiin mooy dee borom bi mooy waxak ak yonent bi na ko saxal ci jaamu yàlla ba kera ngay dee subaa nag ana ban maqaama nag mooy wàcce nit nag ci jaamu yàlla nit ñi ngi dëkk ba boo demee rafetal diggante mu yàlla mu wàcc dëgg la sa jëmm xatta nattu ko kon sa bindare nangootu ko bëggatuñ la. ba nga loolu jotewul rek def lay na sant dara. loolu jotewul def lay na sant dara. firiwul ne jaamu yàlla fa la wàcc. waaye lañ la tolloon da nga tolloon ngay def. seen loolu bu baax a baax. waaw. jël nga ko bu baax a baax. wattaaru ak fii sax na jamono. mu waa di ànd aji juboo. wasiyaat ak fii sax na wér. kaamilatan daaji mat. wasalaamatu ak fii sax na mucc. asilatan da jaam hmm. kii daal yal na ko yàlla yëg ku mel nii la ñu ñaan yërmande yàlla hmm. way laa bu dul kii nag hmm. ku xam ne fooyee dundam rek la bàyyi xel yàq diggante moom yàlla la jël jaam yàlla yi kooku daxa moo yàlla na dikkal ko adamul maral ñàkk càkkutéef waxasarul kallam ak tëjub wax way maamul adam ak wàcceg ay métti waxu moomul imaam ak dogal ak dee wawu duwul xawaat ak dalal wa jëm mm-hmm. wa mirasul asmaas ak jàng ko an mm-hmm. aa han danaa méewu mm-hmm. damaa ngi méttilu laa ñaal mirasul abameeli xaxratan ci méttilu bu xam ne alamuha méttitam waa këdun lu ñu saxal la mooy soo xam ne yàlla xira métti bu tal la wa amaduha diiram sarmadun fawwala umari suha kuy jànkuwante moom mu mm-hmm. ma ku ñu jàq loola kaman mm-hmm. mooy jàqare goo xam mm-hmm. ne man la ko waxal kenn maali wala yi ñi xalu dem ak aji dagg wala li sodami yi ñi xalul méttilum rahimun jenn aji yëram wala lowo ñi xalu ko xasimun aji musle mimma ci li nga xam ne arafu gaar na alhamakum yal na yenk bal leen mm. a yàlla ahmadal ilham gën cay santu yenk bal mm. yal na leen xamalin bi gën mm. waraddakum yal a lambayalee leen rida al igram lambaye teral wa alakum te yal na leen wàcce dara salaam wa asaluhu maa ngi koy ñaan rahmata yërmande lakum ñaal leen wali ahli millati l islam ak ngeen diine l islam woom kiram gën a tabe ci way tedd yi mm-hmm. al musallim mooy kii musle mm-hmm. wasalaam xutba bi àgg na ci jàmm ci jàmm kon ñu jàng ni ñu waajal wax la nga ne qaala wax na alxaaris ibnu hammaam falamma raaytu ba ma gisee alxutbata xutba ba mm. nuxbatan mu de waxi tànneef mm. bila saqatin ci lu du rotit mm. xutba bi yëpp wax yoo am maana moo ci nekk te mel ni séet nag bi xëyri nuqatin ci lu dul ay tomb muy xutba bu xam ne gan la ci sama bët te amul benn tomb daani hoonama alihan jaabu héemu binamatiha ci yoonam hmm. alajib i yéeme ila stillahi wajil xatiib jëm ci sax koo feeñal cel mayel aja xutba bi hmm. bi ma xoolee xutba bi hmm. wax ñor lool fa tabarakallah uslub bi rafet amul benn tomb dama ne lii daal kim ba ko gis daal dama daal daani hoonama ala jaabu héemuloo matiha ci yoonam alhajib bu daa ji yéeme mm. ila si lay wajil xatib mm. dem di sàkk ko feñal xar kanam wàññi xut bi mm. faaxatu ma xaraf atawassamuhoo de ko settantal jiddan lool ma di settantal lool woo qallibu may jàllar bi atarfa gis fii ci moom mujj dan daaji fallu ma de ko bu baax ci barab yi nga xam ne soppeeku gaawu boo gëjee man hmm. nga caa dëgg hmm. nga xàmme ko hmm. ilaan wadaha ba leeree lii ma bi sidqil alamati ci dëggu mandarga yi ne anna wa ne comme cheikhuna suñu góor gi la sahibul maqamat kay borom maqama yi ba ma xam ne xatib bi daal borom maqamat yi la ki may daje dëkk sàngam ak dëkk sàngam ak dëkk sàngam waaye falam yëkkun nekkul bu dun daw waay mm-hmm. mina samti ci noppi mm-hmm. fi dalika waxtu ci wale waxtu mm-hmm. waaye biir jumaa ci diggante xutba julli nag foofu kenn mënu fa lenn lu mooy taraf rek sàmmante ga la fa yóbbu mu ne fa am sattu ma jàpp mooy ma noppi xataa taxallala ba mu xeeweeku minal fardi ci farata ji waxalla te dagan alin ci saaru tasaaro fil ardi ci suuf si waaw wala def taras ba nga xam ni ñu doon jumaa ji àgg na kenn ku ne mën naa dem ci moro muraado àgg nañ ci ida qudiyati salaatu fantashiru fil ard su ma wajjahtu topp ma jubale mm-hmm. wala wajjatu wala tawajjatu hmm? mm-hmm. ma wajjatu topp mm-hmm. ma jublu wala waajatu ah su ma topp ma jublu tilqaahu fa wàllam wabtadattu ma jëkkalante liqaahu dajeeg moom ma gaaw rek jëmale ci falamma laxadani ba ma gendee ko moom it nag ba ma gisee xappa gaaw na fil taxaw wa axfa te mu bëril fil ikraam teral sanu bu baax a wa axfa te gaaw fil ikraam ci teral su masta saaba di topp mu ànd ak man mm-hmm. ila dari yi jëm ci këram mm-hmm. mu ne ma nañ dem ci kër ga mm-hmm. waaw daxaani mu dénk ma xasaa isa ay jagley mbuutam bañ demee ci kër ga wax na lu bëri ci biram li ko fi indee su jaar ba ñëw feeg jamono bi lim sëq ak nit ñeeg hmm. wayi nan tasara ba piree ko hmm. janaahu dalaami mbaggam lëndëm gi hmm. waxaana te jot miiqaatul manaami waxtu nelaw bañ demee nag ba guddi jot fi mu ne tànk lëndëm gi dugg na roq jot ah dara teewal abariqal mudaami mm-hmm. buteeli sàngara yi mm-hmm. ma ko matal muy lu ñu takkee lu ñu kaftee mm-hmm. bil fi daami ci sañ la indi ay buteeli sàngara yëpp ñu leen sañ bam teew ah teewal na mu min abariqal mudaami ay buteeli sàngara ma ko matal muy lu ñu takkee dëgërale bil fi daami ci sañ fa qultu ma ne ko mm-hmm. attax suha da ngay góor sàngara mm-hmm. ama man na mi ca kanam nelaw mm-hmm. wa anta teew imaamul qawmi yaay xilimaani ni ma ne ko ah waay li nga wax ci juma ñëw bi dina sàngara bi nga bera d'accord ma ah waay fa qaala mu ne ma ma fegul xanaman xatibun aji xutba la binnahaari ci takkal mhm. mhm. mhm. sa gémmiñ gi <laughs> <laughs> xaramaan xatibu naa ji xutba la bil nahaari ci bëccëg du loolu nit ñi hmm. defal naa leen hmm. waati bu danaa tey bi layli ci guddi guddi lii laa bëgg xam hmm. defal sama bopp waaye wala nga katte si gémmiñ fa qultu ma wax ma ko wallaahi maa adri man daal xaw ma a ajabo ndax damay yéemu min tafallika ci sa niisu xan mhm. unafika walis say bokk mhm. wa masqati rafika mhm. ak rotu waay sa bopp xan naatu way say am wala damay yéemu min xitaabatika ci sa mën a xutba bi maa adnafika ànd ak say tilim wa madaari kaasika ak wóor waay sa kaas <laughs> ma ne bu ma ngi xalaat sa fi mu ne gëlëm ji laa def mm-hmm. xaw nu ma lay jàppee mm-hmm. waaw man daal gi nga ñeme xàll mm-hmm. joxe jox gannaaw say bokk rek mel ni bëggatoo fa dara xamal loolu daal ci laa la ci laa a xéemu wala nit ñi buñ dajee wax yooyu ñor yi ngay wax ni ko manee ak tilim bi nga xam ni nga jubadee daal loolu la man naa sa mbir tam ma agri qawm ajabu ndax damay yéemu mm-hmm. min tasallika mm-hmm. mm-hmm. ci sëg nii su han unaasi sa wëllis say bokk wa masqati rasika ak rotu waay sa bopp am wala damay yéemu min xitaabatika ci sëg ñëw ci xutba ma adnaasika ànd ak say tilim wa madarikaasika ak wër waay sa kaar fa asaaha muddu moyu bi wajihi ci xar kanam han nii ci man mu ne dama def yow la du muy wax waqaa suma qaala topp mu ne ma isma déggal nag min ni ci man xaaral ma wax la tuuti nag man ni ñu jàng ma xam ne yàlla jël bëri mu ne ma laa talki laa tabki il fannaa wala daara wa dur maa dahri kayfa ma daara wattaxidi nnaasa kullahum sakanan wa mathili l-ard kullaha daara wasbir ala xulqi man tuashiruhu wa daarihi fallabibu man daara wala tudi fursata sururi fama tadri a yawman taisu am daara waalam bi anna almanuuna jailatun wa qad adaarat ala alwara daara كانت لا تزال لا تزال قانصة ما كر عصر المحيا وما دار فكيف ترجى النجاة من شرك لم ينج منه كسرى ولا دار la tabki bul de jooy ilfan xarit naa bum sori na ay baaxoon na mag yi ko baamu solo wala daaran du caggeen kër faafa géjég yi amul solo wa dur wëndeelu rek maa dëri ànd ak jamono kay fa maa daaran nu wëndeelu ah jamono bu dikkee dox doxal rek wattaxir na nga jàpp annaasa nit ñi kullahum képp ci ñoom sakkanan muy dalukaay jàppal ne kenn ku ne war naa mën a doon sa njaatige kenn ku ne war na mën a doon sa wéttal wa masil na nga misaal al arda suuf si kullaha léppam dara muy kër jàppal ne fu ne rek mën nay doon sa kër. bari na dañoo jënd nga. wala tur na nga wëndeelu maa dara keef maa dara nu mu wëndeelu. wasbir te na ngay muñ nag. ala xuluqi man ci jikkooy ku xam ne. doo asiroo yaa ngi àndaale ak moom. te booy ànd ak mu nit da ngay muñ. wadaari yi te ngay mu daaranteeg moom nag. ngay rafetal àndoo. fan la bii bu ku xelu man mooy ku xam ne daara mu mm-hmm. daarante na. mais ku am xel day gëm maslaa mhm. nangu de wàññi ci cëram dara mhm. bu na doon kuy rafetalaandoo mhm. wala to dem bul de sànk nag fursata suróori fursa mbégte temps boo mën a bégalee sa bakkan bi le nag bu jotee bégalee bakkan bi lu ko may nga dee ba fi yëf yi xam nga kay ba yëf yi amaa toog yi xamuloo attaxen su ndax da nga dund yow man benn fan am taaran wala ab jamono bu yàgg boobu nag waawa walam xamal ne bi annal dee jaahilatun aji wëndeelu la waxal a te wër na alal waraa bi dee bi daaran géew da ngay ne dee lu wër nit ñi ndomb la léegi nag mu ci mi nit ñi da jël par kenn da jël par kenn giñ ne moom dee ne laata zaalu du dañ xaani satan aji rëbbu Mm-hmm. maa karra fekk haskana mm-hmm. asrul mahya jamono yu dund ba mm-hmm. maa daara ak fekk wër na moom jamono yu dund mu ne fekk dund ngi am du deñ defaat de fa kayfa turjaa naka la def yaakaare an najaatu mucc min sarakin ci fiir boo xam ne lam yan ju mucc lool min ñoom kisra kisra te mooy buuru fursu bi wala daara du caagen daara daara mucc je kisra mucc ja lii la wax seetlu ko baax a baax hmm. xaala xaalis nee na falamma tawarat naa hmm. ba wëree ba wëree ci suñ biir hmm. alkuosa kaas yi watare ba tebeg annufoosu ba kan yi jarraani góoxloo na ma al yamina ngiñ alxamuusa la de xamuus mooy ngiñ loo xam ne borom xam na li muy giñ ne du dëgg xalan xalaan ah wala ci mhm. bu ma wëttuwaat. Mhm. Mhm. mu ne ba mu xeelee naan xel di ma ñun ku nekk mu ne bu ko wax de. mu ne ko du ko wax mukk. mu ne ma da ngay giñ. ma door a xam ne da nga wax ma ne billahi walaay tala giñ. te damay giñ xam naa ne bu ko ñàkkee def de. jaraa <laughs> de góoxal na ma. xale yi gën a alxamuusa la de xamuus mm. alaan axfasa ci mu wattuwaat xale mm. yi ci annamuusa se karabi mm. mu ne ma topp ma topp ma raamu nekk di wax rek mm-hmm. waaye xew kër ga moom mm-hmm. dama mm-hmm. ma wàcce baynal mala yi ca diggante mbooloo ma man la dégg walam yasal ndax du loolu wa nasaltuhoo ma wàcce ko mansilatal futay mm-hmm. wa saddaltu ma yoor a lafit mm-hmm. ala maxasil layin ci toroxandey guddi yi mm-hmm. e walam yasal dañul saalika loolu daa bahoo de baaxam wa da bii ak de sama baax kon ci nit ñi xam wane <laughs> buñ lakkoo xam luñ defee rek ilaa ntahaya ba jot iyaa fi sama wëññeeku ba dëpp jot fa waddaatu ko ma taggu ko woowa te moom musirrun aji nuur la ala tadliisi ci nëbb gi muy nëbb ayib wa musirrun te aji nu aji nëbb la xas wal xandari si gox sàngara baax na boobu beneen yoon